Eh, maa ngi lay fay maa ngi a baax di julli Yonent bi sant sama ñaari waajur sant ñi fi teew ñëpp sant ma si la Diop xarit la bi yàlla suñu borom daf barke gu barke yàlla dundal doom bi ba mu fekk njëriñam quoi sa ngénte Massila Diop sa diggante ah, rek yàlla ñu boole quoi ñuy diggante di waxtaan ci lu bari moom mooy nit ku baax quoi nit ku oyof baax. te yow bu baax loolu la daal xam naa ko moom. bu mel ne sa diggante moom xarit euh, ko. waaw man ba may takk jabar moom jóge fii ba Diourbel dem kon kooku moom amoo fayam lu ma ci mën rek mooy mam bi saat ma ñëw teewal ko quoi te xam nga nit moom comme wax rek ku la ah, ko ñaanal rek fan ak wér ak njabootam. xam nga lépp lu ñu gis seen suñu borom mottali ko ci barke yonent bi. góor ci kaw Boy Niang ah, yi fi jaar yëpp la rek woon jàll na jàll na comme na ko yàlla na ko ndam ci Boy Niang waxaat beneen combat bu waa parcelle suñu borom yàlla na ko may ndam ndax moom mbër la ñëpp rek champion bu mag a mag la def na performance ba war a bëri roi des arènes te bépp mbër buy ñaan yàlla te xam nga keroog maa ngi déglu papaam di ko seetlu rafet te nit moom mënul am lu romb ngërëmu waajur quoi. mais gis nañ que seen mooy kuy soxla kenn quoi ñun dafa ay coalition ñoo bokk ndey bokk bokk parcelle xam nañu luñ bëri ñu mën a and ànd. tey suñu ànd du ay dañoo wootante téléphone kaay ñu ànd dañoo xool ñun ñëpp mën a ànd ñu ànd quoi mais coalition mooy koo xam day am ku mi daan ñu sopp quoi ñun sotuñ kenn quoi. man nekkul ci coalition de dañoo mën a ànd rek ànd bokk ay bagage bokk bëgg-bëgg xam na lii ñun ñëpp dañu mayante suñ morom suñu moroom doole ndax ki lay may ay millions ki lay may ay contact moo ko gën man sama gis-gis quoi ndax tey jii ñun dañoo bokk loo mënuñ ko séddoo mooy parcelle mënuñoo bëri suñu biir nañ ànd rek ñaata mois ngeen préparé combat ñëw ndax ñu ci bari dañu féete waaw daf nañ comme comme bi ñu paree ci Ama Baldé noppaleeku benn semaine benn semaine lañ noppaleeku commencé waat. waaw commencé waat entraînement ñaar yëpp a metti quoi xam nga mbëri na ñu bokk quoi. ñu duñ ay coach ñun ay athlètes yoo xam ne naan ñu daf leen ñu daf bàyyi la ñu bàyyi. mais programme yi ñu koy changé. te yenn saa yi gis koo xam ne bii pied la pied gauche la ñu ko war tegal koo xam droit la pied droit am na ñoom songukat lañ am ñoom takkatu diggalante sonko rek takkatu ndigg yi lañ gën a soxla kon dina am ñoo xam duñ contact bi lu bari mais ñi ñoo gën a fort ci loolu la ñuy ëpp ñuy contact tey bu ñu bëree bëri dafa booy ñam ñu ah, moom même buñ la waree ndomb ngay bëri doo yaa na daanu bu dee athlète bu pare quoi mais comme li ma wax tout le temps rek Modou Lo tànk la mën na bëri ci loxo mën na bëri tànk xam na fu mu bëree comme li ma wax ci tout temps rek man nga ko xeeb ci ay signature gis ko mu toog mais bu ne futit ngeen dem ci di génn nga xam ne tey góor dëgg nga war a bëreel. nee na loolu amul sikki nit ku baax la. ak koo xam te ne bii saa booy moom ne yokkute nga yam doo am dal ginnaaw ndax di nga entraînement normal kontaan nga contact normal di la wax noppalekul di wax bàyyi lu bon defal lu baax jaamul yàlla moom yooyu moom sa jour di daf ci nopp ñi muy àndal yëpp. sëñ Abdoulaye Diop xaas yegg si la te yaakaar naa gis kilifa bu nekk ñëw ndax kii toog nag seen doom. waaw suñu secret mooy liggéey rek topp ci ginnaaw coach yi xam nga comme li rek nit moom loo xam ne mi yéen a ko bokk ngeen dëkk benn gox mënu ngeen a bëre jàppalante lañ ko ànd leen ngeen jàppante bu leen déglu ma Samba bu leen déglu ma Demba euh, man nag lu may wax moom jóguma ay coalition wala ay 100 pour cent yooyu yëpp day tas coalition wala 100 pour cent yëpp day tas xam la mënul tas ñu mën a ànd bokk ay xol bokk ay jikko ñooñu ba kenn ñuy dee mën nañ bañ a tàq mais bu dee coalition man nga mën nga def ay parti sax bu dee 100 pour cent mën nga def ay parti mais li moom day loo xam ne dañoo mën a ànd rek di ànd ñu ñëpp bokk ndey bokk baay topp ci njiit bi nag comme li ma wax tout le temps benn mbalka la yëkk yëpp ci la ñuy naan mais Modou Lo mooy jëkk a naan waaw mais yëkk yëpp na ci la ñuy naan mais Modou Lo moo njëkk a waaw ah, te géttu nag boo gis am na yëkk bu ko jiite te it boo ko nangoon nag ku la jiite fii àdduna même mbër bu dee daanu ngay daan mën na la jiitu njiit moom fu ëmbul rek tas am na waaw ah, waxi ginnaaw nag ku koy déglu sa carrière mën na bañ a egg doon na kenn yéen di am na ñoom ku lay déglu sa carrière mën na bañ a ndax problème yi ma yegg problème ndaw ndaw ndaw mën nañ ko aggraver ba mu nekk ci kaw waaw. neeru dëkk adversaire u Lo ki nga xam ne xam naa na adversaire am kan la nee na moom mooy xool ki muy bëre moom li ñu am mooy jël na combat ñu leen contact ñu entraînement mais na man soon sama gis-gis man wenn rakam laa maa ko mu noppalee ko tuuti quoi ndax bëri dafa metti te saison bi li ñu ci bëri dafa bëri bëri ñaari combat yi tegloo te dafa yor famille yor njaboot yor ay soxna te ñooñu ñëpp xam nga bu amee nekk ñoom normal quoi su ma sama gis yoon bi doon ma a wax da ngay noppaleeku ba déwén ngay door jël combat waaw ñeneen nag ñeneen ñi bëgg nag ñu bëgg ruwaate wala bëre ñu bëri seen biir xool lu ñu am. non tafaatin moom comme li ma wax tout le temps rek xam nga nit moom boo dëkkul ak moom at waxal dëgg rek ñu nekk ci VIP yëpp tafaatin moo ci gën a am na mbër yoo xam ne ci VIP toog nañ ay 6 ans benn mbër lañ daan am ñoo ay 10 ans lañ toog ñaari mbër lañ daan Tapha Tine cinq combats teg nañ ko victoire te poids lourd la daan. kon moom Modou ñor na xaw non moom Modou combat la quoi. mais man dama ne diw mooy jël di wal de mais dama ne Tapha Tine ci poids lourd yi ko doon moo ci gën def ay performance bu baax waaw ndax gars yi poids lourd ngay dégg yëpp seen cool yi dañuy tagga démb ñaari combat daan benn combat tagga démb ñetti combat daan benn combat muloo Tapha Tine ñu tagga témbawul ñoom ñaarum kenn tagga témbawu ci dañuy ñëw daan muloo nag comme lu may wax tout le temps mooy roi des arènes dëgg boo ko bëggee jëla Modou Lo roi de arènes yi fi la ñu dañuy jëlaat benn danaan baa mu jël benn mag wala benn pa am benn ndam moom nag dafa dafa xool dafa xool ñaar ñi gën a tëb mu ne ñoom te moom yàgg naa ko dégg ci moom man su ma nekkee roi des arènes ñu gën a tëb samay morom a neex a dal di a tee nañ ci yomb te daan mbër la kuy bëri na ay pare xam ne ko pare yenn combat yi xam nga gars yi nag comme li may wax rek la farul moom farul la mais nag ñàkk faral ni nag teew di nga wax lu baax dafa di lépp lu mbër di am daje na ci moom waaw roi des jëlagul te mën moom noonu lay doxe mais daal maa ngi ñaan yàlla yàlla mi ko yàlla mbooloo bàyyi wala roi des arènes ba xam ne làmb ji ñëppay bëri seen biir fii kenn dootu fa may roi des arènes yàlla na bàyyi wala roi des ñëpp bëri seen biir booy tax booy mën a bëre ak mag ñi ndax boo nekkoon ci roi des arènes moom compétiteur rek ngay doon compétiteur bi boo ko nekkee ñëpp ngay bëre waaw. ay sa combat Gora Sock Serigne Ndiaye. waaw ñu ngi doon ko dox dañoo jubóogul woon rek mais xool ma xam ne moom sama nawle la sàmp yoon ay morom la xam nga bëre moo ko ñor bëre dimbali ay waajur moo dimbali sama waajur moo ko ñor. non du wane day nekk sama morom rek wane la wane di xanaa man bari naa ñu toll ne moom. daan leen daan leen ci bëre Serigne Ndiaye sama naw la li may laaj nañ ma ko jox rek du ma fi nekk di waxante woo nañ ma dem woo ma tey nañ ay nañ mottali rek waaw ah, man waxuma dama bëri sëñ xam nga ma bëri diw mooy lan mooy man bëgg bu la wooyee bëgg ma waxuma bëgg ma dama fay li ma jara ma bëri ak moom waaw waaw sant yàlla rek sant fépp bu suba reer góor su ak mboor sama xarit yi ku mel Aada Jokkel Pape yaay Seydina Mohamed Moustapha yaay yeneen ci di nuyu nag parcelle gépp Cambérène ak sama mbokk mboor ma fi suma réer gauche rek maa lay nuyu di wax ñu ñaanal ma am suñu borom may ma jàpp allah